jigéen mooy biddéew bi leeral asamaan bu jant bi soowe ay kàddoom ñooy defal saa yu xel yi jaxa soowe jigéen mooy àdduna ak meññentam saa yu góor bëggee rekk moom moo nekk ci ay wetam jigéen Assalamualaikum internet Antv TV yi ki ngeen deg nonu moy Assane sar di poète slammer ñu gën ko xam ci le poète séeréer mom nak lañu ñu invité tay ci suñu émission l'invité fi ci Hann TV ngir waxtaan ak mom ci art bobu muy yëngu Assane ñoo ngi lay nuyu dila dalal ak jàmm suñu plateau dila baye nga nuyu ak mbokku internet yi. asalaamaaleykum Khadim ma ngi lay fay di nuyu ekip bi nga andal ak internet Hann TV yi di am bu baax bokk ak yow plateau bi. Assane ñu bëggon xam lu lo duggal ci poésie. alors question plus pertinente le mot de ci poésie donc je suis au lycée de je dama intégré au club de littérature d'art et de philosophie euh, ginnaaw lolu dañu doon lo li nga xamné ne d'écriture au-delà de ça aussi dañ doon organiser ay journées de lecture vraiment ci lolu amouru poésie duguma donc euh, bama continuer diko def diko def ba fiñu ñu toll nii aussi lecture bi dama gëna influencé parce que j'ai lu beaucoup d'œuvres yo xamné c'est de grands auteurs yu ma permettre tay ji vraiment ma œuvrer ci monde poésie. lycée Thiaroye nga débuté njëlbeen bi est-ce que yomboon na. tout début est difficile mënul yomb parce que poésie mo donne lo xamné euh, maîtriser ko il va falloir que nga xam peut-être li nga comprendre la poésie et au-delà de la compréhension de la poésie aussi nga xam comment est-ce qu'on compose un poème euh, lolo da ci am solo et loolu aussi mënul yomb ci début bi donc il a fallu que je prenne du temps pour que loolu non ma mën ko maîtriser. ñan ñoo doon motiver moment yoy non. alors ñan mom ñan ñoo ma doon motiver mun naa sama camarades de classe parce que très souvent dama doon bind ay euh, poèmes yu ndaw di len ko exposer di len laaj nak souvent sen gis-gis par rapport ak lu ni mel et ñom dañ ma doon critiquer très souvent mais des critiques subjectives parce que nit ki mom boko proposer dara bu ñëwee ne la baax rek très souvent très souvent rek Japonais ne lu des mais bu lay wax ne lii il faut refaire ça il faudrait que nga améliorer lii nii jàppal ne yaa ngi ci bonne voie bi alors mes camarades de classe et surtout mes parents aussi parce que sa dama am euh, chance beaucoup ak euh, bokk ci famille boo c'est une famille littéraire donc ñooñu noonu dañ ma doon encourager très souvent vraiment may œuvrer ci monde poésie bi aussi. dañuy gis ay écrivains yu naan suñu weetee la ñuy bind am ñuy faral di wax leneen. Assane inspiré. <laughs> alors Assane lan inspiré solitude déjà moi, nek man très souvent dama koy bëgg parce que je sentir damay sentirou nek euh, voilà monde monde. et au-delà de ça aussi suis euh, adorer les fleurs de les très souvent parce que dama ciy pour imaginer vraiment di xol lan la meuna def ba jaxal askan grâce à sama écriture. te mën nañu que ne solitude ak fleur yi la gëna aimé. voilà solitude ak fleur donc dañ nekk lo xamné ne ji ay euh, lu ma permettre la manam tay ji ma ma def yi. na ci fonction yi ëpp importance ci écrivain muy la fonction engagée Jean-Paul Sartre témoigner dénoncer demeurer tels sont les rôles des poètes engagés bravant les intérêts jusqu'à leur péril la poésie ne doit pas périr car alors où serait l'espoir du monde ça par rapport la fonction bobo. alors si on euh, dañuy définir littérature de manière générale que de des fonctions telle que la fonction engagée donc la poésie aussi nous de dafa am lu fonction engagée et bon, il y a beaucoup d'auteurs qui ont cité une euh, poésie engagée dont je peux citer quelqu'un le nom de MSSR. « si je ne sais que parler c'est pour vous que je parlerai ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche ma voix la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir ma voix est la voix des sans voix donc il faut prendre en compte les besoins et les mots du public de la société pour transformer euh, ci ay propre mu nek ay propre mom manam mu nek ay propre problème am ba mom mu indi ay solution là-dessus donc au-delà de ça aussi damay japp né tay ji dafa don le droit le plus absolu moy l'engagement tay ji da ngay gis ay sociétés yo xamné dañu subir ay séquelles et il va falloir que mu am ay nit ñoo xam prendre les devants pour mëna a xeex lu ni mel donc dama japp né fonction engagée lenn lu war la par rapport à écrivain parce que écrivain d'accord mën nga génne émotions, émotion mën nga expliquer société bi li muy dund mais li ci importance prendre la responsabilité et voire même dénoncer les injustices que subissent bien sûr la population. ok yow yan yan yan yan nga yan engagement nga jot a jël ces say écriture en tant que poète yan engagement déjà avec les talibés ben situation que xam chaque jour parce que man su may des fois damay dajé ci arrêt bi ay talibé yo xamné dañ lay talal loxo très souvent euh ño xamné des fois dañuy dañuy nelaw ci ay garage ñi di nelaw ci ay marché ñu dund ci ay situation yo xamné yow mëno ko comprendre étant donné que ñooñu ñu xëy xéena dama japp né daño daño dañ leena a délaissé alors man personnellement j'ai pris ma plume et ma xol nak lay mëna défendre ñooñu ñu xamné amuñu voix. lan nga wax ci taalibe yi. donc ma ngi naan euh, je mène matin et soir à Salmodier recevant des châtiments durs sur mon dos, espérant fuir un jour au bord d'un manguier afin de me procurer un peu de repos. Chaque jour m'exigeait une quête d'aumône que notre maître Dara nous ordonne d'une voix monotone. Malheur à ceux qui n'amèneront pas de sous, pourvu qu'ils seraient abattus de coups. N'est-ce pas Donc pour continuer un petit logique, je vais décrire un peu l'univers des talibés. Vraiment, Dieu le plume, je vais défendre au-delà de talibé il y a un projet nga tu as réalisé. alors Assane projet yi mu as réalisé c'est une publication d'anthologie. anthologie. donc je euh, suis ci un groupe bu ñu Parlons Poésie suis regroupé des auteurs Sénégal et internationaux. Euh, vraiment en 2018 nous avons publié publier recueil de poèmes bu ñu de crise d'encre donc je suis là, pour publier des textes. texte voilà loolu dal moy projet bi nga xamné bima bi commencer commencé poésie ba légui mettre en place et participer aussi ci yeneen activité yo xamné c'est est dans le cadre de la poésie alors pour le moment mom mangi ngi ci ay projets yo xamné c'est des projets personnels. il y a un projet mo certainement sa kanam certainement. un projet donc damay japp ne euh, tout écrivain au-delà de la participation dans l'écriture d'une anthologie warna na gagner ben génne benn recueil personnel donc man personnellement maa ngi nekk ci logique boobu noonu maa ngi xol naka laay jéem a ben benn recueil de poème au moins ma jéem a inscrire sama tour, ci euh, liste écrivain sénégalais yi te incha allah ngi ci maa ngi ci yone bi. ban message ngay lancer ndaw ñi bien sûr ci walum lecture parce que seetlu na ne li ëpp ci ñom nouvelle technologie bi lañ gëna faratal légui alors boo xoolee euh, comme ni nga ko rek lecture dafa dafa xawa soxé ci côté jeunesse bi. Il y a la présence des nouvelles technologies euh, comme les réseaux sociaux voilà WhatsApp Facebook ak nous email. mel ñoom ci euh, prêter attention souvent ci accorder de accorder temps mais damay jàpp aussi de des bibliothèques à proximité dina mën facilité lecture et parce que les gens ont livre sur sa téléphone mais est-ce que yow réellement temps bi nga wara accorder ci livre physique bi di accorder ci livre téléphone c'est ça la la la grosse question et man je pense que aussi jeune ñom ku leen inciter ci lecture ñom ñom dinañ ci dinañ ci dox quoi parce que damay japp né lecture mom kenn ku koy def rek dina mëna monde bi de manière euh, beaucoup plus beaucoup plus large. Hassan lu waral turu le poète sérère turu le poète sérère donc man suis sérère déjà euh, j'habite dans les îles du Saloum. Euh, au-delà de ça aussi je revaloriser ce que je sais culture donc je vais des fois différencier un peu des autres. mais est-ce que différence parce que vous êtes le poète séeréer nous dañuy que xel day dem Léopold Sédar Senghor. Léopold Léopold c'est un idole Léopold c'est un idole et on dans ses écrits surtout Chant d'ombre boo xoolee ci poème da ci et euh, traduire en français donc pour montrer mon attachement envers la culture séeréer.

remercier remercie ñi nga à travers Antivi et di ci aussi ñi nga depuis démarré ba légui ñu ngi may commentaires yi suggestions yi di critiques yi ci ñi nga aussi duñ à ci ma famille grâce à la poésie mu di camarades de classe ñeneen ñi nga voilà alors je dirais ta mauvaise pensée t'a trahi quand tu as pensé que la pensée d'autrui n'est pas la bonne. Aucune pensée n'est meilleure que celle positive. Et rien n'est plus beau que de penser mûrement comme les autres penseurs qui pensent pensivement avec l'esprit pensif, sans pour autant amoindrir la pensée des autres penseurs. Je pense, tu penses, nous pensons, mais disons nos pensées se diffèrent là, j'aurais accepté sans aucun doute. As-tu pensé à ce grand penseur qui avait soumis sa pensée à un penseur qui sa pensée était considérée comme une pensée intelligente Moi j'ai pensé à ce penseur, car penser sans penser à ce penseur ne serait qu'une perte de pensée. J'ai pensé, j'ai encore pensé pour que mes pensées, pensives qu'elles ont été, pensives qu'elles seraient, soient les meilleures pensées au monde pensif. Mais je pense pensivement que j'arrêterai pensivement de penser pour réfléchir un jour ou l'autre. Slam. mu nekkoon mbégte ak contentement dalal ko ci suñu plateau fii ci Hann TV seen émission l'invité Assane Sarr le poète ñoo ngi lay jaajëfal di la ñaanal carrière bu gudd di jaajëfal tamit euh, internaute Hann TV di leen dig daje ci beneen numéro ak beneen invité Khadim fay la woon ci présentation bi bu naa Bounamou jot ci technique bi merci